فزت بزار في الحسنات سيدة لمسينات مريم فوق دمخينات عند الذي لم يدركي nu fayaakoo nu laaki xayra rasuulanti xaat wa biki fa suusuti xaat walam yakun bi musuri لم يخفاي للمؤمنين كونك بالمزينين يوم خير مزينين مزمة من سراكي يقود يغني لمديك مع كيف لن خدوك فسي بيس للمرهيك كل تخي المدرك وأجاد الأحبية wasalaatun wa salaamun sarmada ala xayri albazar sayidina wa mawlana wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa baxdu fa yaa ixwatu alwaafidina min jihatin munfasala nuxayikum wa nuraxibu bikum fi haasihi liqaa almandabu diiniya ونتمنى نشارك معكم في هذه المعاملة العظيمة أي عظيمية بعد ذلك نزور جميع المعادرين في هذه اليوم يعني في هذه اللحظة وأقدم من عمدة الغرية وإمام المسجد wa jamia ma yataallaq bihim wa jamia al adyaf alladina jaau fi hadihi algariya li ajli hadihi alyawma bada hada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala ci julli ci ki nga xam ne mooy sangi-sang yi saydina muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yoon nayu ñëpp wante di nayu di ko dalee ci ki nga xam ne mooy borom dëkk bi waaye da ci teg ki nga xam ne mooy njiitu jàkk ji jiitu jumaa bi am mboolem ñoo xamante ne ni ñu nga aji si ñoom wante di nayu gan ñi nga xam ne ñoo ñëw teew fii ngir ci bés bu màgg bi mooy bés boo xamante ne ni dañ koy amal at bu jot di ko jëmmalee dëkk bi di ko cant ñu waxoon nag dañu amoon li ñuy wax cérémonie officielle bi ñu bëggoo ubbi jotaay bi su ko defee ñu joxe kàddu yi fa tabarakallahu su ko defee ñu continuer da xaw na guddi su ko defee dañuy jox ki nga xam ne mooy suñu ustaaz di imam Aliyun Jawara su ko defee fa tabarakallahu mu ubbil ñu jotaay bi dalal gan su ko defee ñu continuer suñu kaddu incha allahu fa tabarakallah ba ci kanam kan al imam bismillah taay bi dalal gan ñi ñëpp teew déglu su ko defee fa waaye ñëw nekk rek na ñëw jël place fa tabarakallahu ñu dugg ci liggéey bi incha allah kala oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah qabla kulli shay'in mooy ñu jox kilifa gi teew nga xam ne teewal na fi kilifa yu bari nekk it turandoo ci Chérif nga xam ne moom la suñu nijaay tuddee woon euh, Chérif mi muy Chérif Omar dara mu ngi fi teew ñu buggoon mu ubbil ñu jotaay bi ci ay ñaan bala ñuy continuer ci waxtaan wi Chérif bisimilah. alayhi Euh, jotaay bi jotaayu ñëpp la ñëpp bokk jotaay bi ndax jotaayu yonent bi sallallahu alayhi su nu la suñu waxee Serigne Touba rek war nañu wax Muhammad sallallahu alayhi wa kon jotaay bi jotaayu yonent bi la ci ku sang ba mu nekk sang Muhammad rek moo koy sang ba nga nekk sang kon kontaan nañu ci teewaay bi fekk na nu kilifa mooy Mor Mbàkke na yàlla yàggal ko fi defal ko jàmm mm, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu def fatiha ñetti alam nashrah salaatu ala nabi ji ñu ubbi jotaay bi juddi ubbi ko ci kaw dal ak ci kaw yàlla ak ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatiha ñetti alhamdulillah alhamdulillah mahmudul ala waasi al hata alhamdulillah wa atadilu wa ahtadilu bi ismillah mamduhul asma mahmudul ala waasi al hata al madru li hasmi lahwa malikil umam wa musawiru rimam wa ahli sama wal karam wa mulikahaat wa iram adraka kulli sirrin ilmahu wa hamma kulli aalimin tawlahu wa hadda kulli maaridin hawlahu ahmaduhu hamdal muwahid wa aduwahu duwaaw muammil kama qaala allahu tabaraka wa taala qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad laa natulul kalaam li diqi saa wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu gën a sell di jógee ci ay xoli jullit jëm ci ay xoli jullit tey daal dañuy wax ne que Serigne Mbamba suñu amoon ajana képp ku fi taxaw da nga dugg tey ajana ndég seeni kontaan kon ñu déparé wax ji ci turu imam mooy Cheikh Cissé moo ñu jox kàddum borom ndëkk Chérif waaye ci kàddu am pate Cissé nga xam ne mooy magi Chérif ñaari kàddu lañuy la tënk nayoo ko dëkk bi nayoo ko gan ñi dalalee leen ci wàcc leen seen wàccuwaay ñuy wax ne ñu ngi sukkandiku ci yàlla di muslu ci wax fi loo xam ne day nekk luy jàngaloo suñu xol wala day yàq suñuy jëmm di dalal ñépp ci bismillahi rahmaani rahim ci kàddu Hampâté Cissé Seexu Cissé Sërif Cissé ci la ñuy waxee di sant dëkk bi di sant gan yi nga xam ne ñoo ñu fekkee sele fii dafay mel ni wax ju ñu waxoon daaw la dañuy bayaat damay yaakaar ne baxaw moo gën a metti bayaat kon bayaat bi mooy la ñu waxoon daaw fa ñu tegoon suñu tànk suñu ko mënoon fa lañ koy tegaat mooy sant yàlla ci ñi sanc dëkk bii ñu fekk si ci dëkk bii ba am fi li ñu am tey ci sunu tiraangaak àddina de ci yaakaar sutura si àllaaxira kon ñu sant ñooñu nga xam ne ñoo sàkk dëkk bi sanc ko ki ci njëkk mooy Serigne Bamba Serigne Bamba Cissé yaakaar naa ne Serigne Bamba Leeba moom lañu ko tuddee moom Serigne Bamba bu mag ñoo bokk jamono bokk turandoo Serigne Bamba moomu moo sanc kër Serigne Bamba bu mu sancee kër Serigne Bamba tukki penku ci seen benn sanc yàlla moomee ko fa Serigne Bamba nekkul fii kon Serigne Bamba dafa sanc dëkk bi tukki faatoo fële mu tukki woon am na ñu fa dem ba ci xabrum waaye Serigne Bamba du muy dem foofa bàyyi na fii doom bu ñuy wax njang siise njang siise bi Serigne Bambay dem booba mën a gudd taxawal dëkk bi waxoon naa la daaw na la am na ku fi wuutu woon ñi ko wax Birane Siise doomam ñëw na ba agsi fi ne dëkk bi papaam amee na ko ñaar fukki at ak juróom-ñaar dëkk bi bu ñu ko seetee fu ñu ko santeeg léegi téeméeri atam yi matsi na Birane Cissé bi mu ko amee ñaar fukki at ak juróom-ñaar njang jógee na fa mu nekkoon wala yàlla may na ko kàttan mu bëgg a jël dëkk baayam waaye ba mu ñëwee mel ni jafe-jafe am na ca mu toog ba benn bés Birane Cissé tukki njang dikk rek sanc bi njang dikkee sanc Birane ñëw na ah waaw kan moom moom sañ ci bële ñu ne ko sañ ci bële de njang siise lañ koy wax te xam na ne njang doomi sëriñ bamba la sëriñ bamba taalibeb sëriñ tuuba la woon xaqan daan faj gàcce toppoon sëriñ tuuba ci topp bi war ci taalibeeg sëriñam topp ba ca war moom la toppe woon sëriñ tuuba ñoo bokkoon turandoo njang moomu nag sëriñ bamba moom moo ko sëriñ Bamba ni ko jur doomam boobu moo fi nekk ña fa nekk ay doom yu jigéen lañu biñ jàng sancee dëkk bi Birane Cissé dëkk feek moom ab diir mu xam ne ki papa moo santoon dëkk bi dëkk bi am na yeneen yu fa jaar waaye mujj na de delsiwaat ci Njang Cissé Njang Cissé amee dëkk bi Njang Cissé moomu moo jur ku ñuy wax Mama Cissé moom itam bëriwuloon ay doom ñoo xam ne góor lañ mama siise moomu la jur mu jur ku ñuy faana hawa jur soxna hawa jur jur faatu hawa jur hamin hawa kon ñeenti doom yu ñeenti jigéen ñooñu moom moo seen càmmeñ bi mu nekkee seen càmmeñ doom yooyu nag kenn ku nekk ñoom itam am foo demoon samp fa sa néeg boo seetee ñi fi nekk tey ay sëti njàng lañ waaye duhuñu doomi Mama Cissé Mama Cissé wax naa la ne njàng moom la jur jur faana hawa jut soxna hawa jut faata hawa jut hamin hawa kon ñooñu ay doomi njàng lañ kenn rek moo fi des ñuy ko wax Faat Cissé moo fi des ci doomi njàng ñooñu góor googu keroog bi mu faatoo borom dëkk bi nekk ñetteeli borom dëkk bi man ak moom morom lañ keroog lañ fi jógee koo dem kër ñaata jàngi muy ku ñuy wax maam Fariñ Siise njàng moomu bi mu amee dëkk bi yaatal lépp loo xam ne dëkkandoor la boo xoolee dëkk bi am na ay bambara am na ay turka am na ay tëgg am na ay géwél am na ay géer am na ay jaam loolu yëpp mu xam ne doom aadama doom aadama la ñu bokk dëkk ci dëkk bi xaarle ko dëkk bi xaarle ko suusi ba njabootam ñëw tey dëkk fi kenn ku nekk dafi dund yaag sa njaboot kon ñu amee nañ ko jërëjëf mama Cissé moom moo fi jur ku ñuy wax maam Serigne Cissé maam Serigne Cissé man ak moom ñoo bokk benn at ñu dem kër ñaata jàngi Mama Cissé bàyyi na fi dëkk bi lu toll ci juróom-ñeenti weer wala fukki weer waaye manqué na at mu demoon dëkk bi ñuy wax Daaru Rilwaan bu mu demee Daaru Rilwaan nawet fa delsiwaat ci dëkkam bi mu delsee ci dëkkam sëñ Mama Cissé moo amee woon dëkk bi dellowaat ko dëkk bi Mama Cissé continué ak dëkk bii Mamad Cissé li baayam doon baax baax moo ko gënoon a baax moom itam mu nekk koo xam ne ku yaatu la ku yaatal la ndax Mamad Cissé moom itam Serigne Cissé la jur ci jamono bi nga xamee ne ay jarbaatam ñu ngi ñëw ci dëkk bi boobu moom itam amut njaboot goo xam ne mën nañ koo téye faana awa jur Ampati Cissé soxna Awa jur Ousmane Thiam Ousmane Thiam doon jàngee dëkk ba la ñuy wax Njaay Njaay sëriñam gane si papaam gis papaam ni mel moo dagg xalawaay Ousmane Thiam mu ne ko delluwaatal ci kër ga jàppale sa way jur wa mu del siwaat foofu jàppale way juram ba way juram jiitu bi way juram jiitoo way juram wu góor jiitu na mu del siwaat ke sëriñ Bamba ànd ak way juróom wu jigéen way juróom wu jigéen nekk ci kër càmmiñam faana xawa moom fii la nekkoon fii la bàyyi am paate siise nekkoon ñi ko wax Omar siise am paate doon jàngee kër maamu sekk alawaam àgg moog seexu siise ñoom itam ñu ñëpp si fekk si seen yaay seen papa jiitu kon ba léegi ñu dëgëral si seen nijaay soxna Awa ñibbisi ci kër gi faana ci kër gi la nekk Hamine euh, ci dëkk bi sëy moo jur ku ñuy wax Modou Cissé moo jur ku ñuy wax Ibrahima Cissé moo jur ku ñuy wax euh, Yaama Cissé ñooñu moo leen jur mooy kër gii ngeen janoot Fatou Awa it Fatou Awa nekkoon kër Bakka Diaw man foofu laa juddoo 57 58 sama papa gaañu sama yaay moom itam ñib si waat ci càmmeñam bu mu ñib see ci càmmeñam càmmeñam xuuf ko dama la naan njang lu muy baax baax Sëriñ Bamba ko gën a baax Sëriñ Bamba lu muy baax baax Mamar Hawa ko gën a baax Mamar Hawa jigéen ñu néew doole la ko yàlla séddoon mu dëkk ba dëkkook seeni doom Hampaate jiitu ca Ousmane Thiam tegu ca Kéba ja war a tegu ca ñoom ñëpp ñu ngi ci seen keppaar ak lijaay jàppalanteeg ay doomam da wéttilanteeg ñoom ci barab bi te duñ leen mës a yàqal dañuy dem ba naan li góor amee jigéen man na koo amee waaye kii nga xam ne mooy am Hampaate Cissé wax boo mësul koo dégg yaayam bi nga xamee ne mamat awa mooy mag yaayam moo ca tegu te ma sa xëccoo dëkk bi kon Mamad Awa xiit na ay jigéenam ay jarbaatem fekk ko fi dëgëral kër gi mu jox leen tool dëkkoo leen maam Serigne Cissé bi Mamad Awa jógee ko fii maam Serigne Cissé moo amee dëkk bi maam Serigne Cissé yore dëkk bi. jékki demaat moom itam Casamance am na fa juróom-ñetti at dëkk bi tegu ci loxol Hampâté Cissé bi mu tegoo ci loxol Hampâté Cissé juróom-ñetti at bi mu delsiwaatee ci dëkk bi bi mooy amat juróom-ñetti fan jot na këram jot na ay toolam jot na njabootam fi rurale bi ne ko suuf si soo ci amee benn meetar ña nga fa fekk si ñoo la ko jox keroog ba mu ñëwee guddi ga bala mooy bët di set kenn kum ci joxoon ci suuf man kaarang la ma fekk yëkkati naa la ma am ma ne ko paate la ma joxoon ci suuf si borom dëkk ngóog am paate juróom-ñetti at la ko am di fay lemp te mu koo fayee ci turu maam sëriñ kon dañuy wax ne cosaanal dëkk bi mooy loolu fi mu nekk ay jaba ay jarbaat ñoo fi ëpp doole bi maam sëriñ jógee waaw kon dafay mel ni waxtu wi jot na euh, xam naa ni ñu bëgg a waxtaanee danga dafa xaw a xat ñu jox kii nodd rek mu nodd bisimilah. alhamdulilah rabbil alamin kon ñu continuer waxtaan wi ànd ak yeggali ko ànd ak itam bugg a gàttal ndax dañoo woote ak cant te bëggu ñuy lore comme bëggu ñuy lore kàddu yi mën na gàtt dalal gan ñi li fi xaj ñu xajale ko fii waaye li duuf yépp xajul ci cin li kon dañ doon wax ne dëkk bii mooy kër Serigne Bamba fii la jaar ci Serigne Bamba jaar ci ma Njang jaar ci Mamat Cissé jaar ci maam sëriñ Cissé kooku mooy koo xam ne bi mu nekkee borom dëkk man ak moom ñoo nekk kalaas moom muy doom yëkk man may doom wëll kon noonu lañu bokkee nekk ca dëkk bi moom mi nga xam ne mooy maam Serigne Cissé li dëgëral papaam mooy ay jarbaatam yàlla ni muy def moom rekk la ndax kenn ku nekk ci ñun faat na papaam indiwaat jigéenam mu toog ci ronam te jigéen ñooñu fekk nañu jural ko ay kilifa jural ko mbooloo moo xam ne mën nañ koo jàppale kon wax naa la ne Maodo tuddee Samb. sëñ mhm. mhm. waa xam naa dañuy fexe dalal ñooñu nga xam ne ñoom lañu ñu tuddee bés bi su ñu demee ba nga xam ne toog nañu ñu présenté leen gàttal kàddu gi siyaare leen delloo leen kon léegi ñu seet place yi nga xam ne foofu la ñu toog. seet palaas ñi mbooloo mi war a toog ñu taj leen fa doo nga continuer waxtaan bi waaw kon ñu yeggali <laughs> ànd ak guddi gi rek ak programme bi comme ni nga ko waxee wante di ziara sëriñ bi nga xamante ne moo ci teew te bii bi nga xam ne moom la mag ma waxoon naan afri bay bi xibaar yi am bi bay bi li usratin jamaata qatri illa ma taxtani bi tay qalbi bi naari xub xayr xayr أتسجن الهوى في كل يوم مدا تصف آدم أو ديني دع عنك تقن حساب كارم به يزداد قلبي من فتي يجزي على كل المبارك ولقد خلى بد من تقديم كل مقدمة وكل قلقة من أنس وجنة له حرمة كحرمة سيد فرعها وكن ذاكرا له ابتداء اول فهو مثل ابائهم بل احسن منه فقاموا مقام بدوع الحكمه كزين نزار بابا بابا وانا بجد kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati di si jëkkëru bu baax a baax wante di continuer ak programme bi di jox ñu xam ne membre bu dëkk bi nekk papa Ibrahima Dramé moom mi nga xamante ne muy ñëw waxtaanal ñu lu jëm ci daayira bi ak li sos daayira bi ak li doxal daayira bi ak daayira bi fu mu toll ak maxaayi si ñëpp su ko defee kàddu googu ku ñuy wax Ibrahim Dramé mooy ñëw ah, ñu jox ko microphone gi incha allah su ko defee am na ñu ku ñuy wax ah, maire fi ak délégation ñu fi ku ñuy wax suñu sarit mu ngi fi gannaaw ñu yëpp nag suñu defee danañ su ko defee moom mu tëjee ñu euh, jotaay bi à euh, waxtaan bi ak li nga xamante ne noonu lañ ko tabarakallahu insha allah su ko defee ñu joxoo Ibrahim Dramé ayna Ibrahim Dramé tafaddal maskura bismillah li tax ma ne sama xol dafa sedd bu yàlla defee jàmm ñu jur suñuy doom suñuy doom am lu ñu sukk di ko mébét di ko mébét di ko mébét ba mu agsi fii ñu oo ay kilifa yu toll fii ñu ko ci ñoom andi leen ci dëkk bii ah wax dëgg yàlla gàcci ngaalaama rek lañ leen mën a leen wax gàcci ngaalaama rek lañ leen mën a wax ma bëgg leen a xamal na leen daayira Kër Sëriñ Bamba bii ay xale yu tuuti ñoo ko samp buñ julli aan et bu da alxames alxames ja bu delsee ñoom fii la ñuy fanaan ba bëset di jàng seeni xasida di jàng seen i alxuraan ba jant bi fenk ñu dem waaye ñu nekk ci turu sëñ Touba ñu xam ne yoonu sëñ Touba amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am ñu continuer ci loolu ñi koy gis ñun mag ñi daanuñ fi dikk ay xale yu tuuti ñoo ñëw fii te suñu doom lañu ñu fanaan ca kër ga. ñu xool ne yii kan am na si luñ jàpp jàpp bi rafet na baax na kon nañ leen dimbale magi dëkk bi oote nañ leen dimbale xale yii ñu ñëpp ñu jàpp ci muy góor di jigéen di mag di ndaw képp koo xam ne nii tey ji lii depuis daaw ak ren dugal nga si sa loxo sa ñaq ak sa doole ñu xam ne kat lii am nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax jàmm ndax bu fekkoon ne ay bal la wala ay sabar la mu ne am ne ko konoon dégagé nañ lii waaye daayira bi ay booy yi tuuti ñoo ko samp nekk ci ñetti at ba ñeenti at ñu ëlbati ko xam ne lii lu baax la ñëpp jàpp ci bi ci ñëpp jàppee ñëpp dikk ci kon sant na yàlla bu baax te képp ku fi taw yal na yàlla defal jàmm waaye képp ku fi teew yal na defal jàmm te ñun ma bu ko xalaat ne ñun suñu booy yii baax nañu baax nañu de. ndax li tax ma xam ne baax nañu ñoo nekk ci réew mi di jàngale liñ fi amee ci ay daara bëri nañ liñ fi amee ci ay école bëri nañ ñun suñ xamuti xaman nañ suñ doom yi te suñ doom yi ñu ci réew mi te kenn du leen joxoñ baaraam kañ na ñun dañ ne su fekkee ne ñun si suñ bopp amul ku ñu woon diine ñun suñ doom yi am nañ diine ñoom bu baax a baax te wóor ma lii ñoom ñoo ko sabab seen yaay nag takkaay yi si kii si ku nekk teg lu ëpp junne ak nangam góor ñi teg lu ëpp nangam ñu ëppale ko def ko fii tey ñu tuddee ko góor gu màgg gii waaye waay yàlla nga fi yàgg te wér ak képp ku fi teew ci barkeb salaatul fatiha ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax ñu xam ne ñun de suñ gune yi bu ngeen teewee ñaanal leen ñu yàlla ñu lii di gën di jàll daanuñ fi rey dara naku deux cent mille francs lañ fi rey tey maa ko jënd naku deux cent mille francs lañ fi rey tey te ku ci nekk dafa yoral sa poche toogaat ca kër ga e ñun li li li li li nga xam ne daayira ba ko moom génnagul de képp ku fi lekk dañ naan ci sa fa nga dal moo la ko jox waaye li nga xam ne daay dafay ko moon dara génnagut dara génnagut ngeen xam ne da ngeen añ da ngeen reer da ngeen ndékki bu kenn ñibbi ku fi añ reer ndékki ci sa poos ki sa sa njaatige la waaye ma bàyyi xel ne laax sombi mooni lu nekk togg nañ ko waaye waaye nag dama bëgg nag bu kenn déplacé waaye waaye ñaanal leen suñ gune yi ñaanal leen suñ gune yi du ma dem naa ko ñaanal leen suñ gune ma ñu yàgg seen kanam nekk buy def lu baax waaye waaye ñaanal leen leen kon xale yi jaageen jëf yal na leen yàlla fay ak bokk fay leen ci barkeb rasulillah ci barkeb rasulillah maa ngi kontaante nag yéen ñëpp jigéen ñi dëkk bi yëpp parce que seen naataango yaa ngi nii su ngeen baaxu doon su ngeen dikkee du ngeen am njaati gi toll nii waaye xale que si jigéen ñi que sëñ Bamba day ki la ma jaageen jëf ku ci nekk démb la ñëw bale dëkk bi yëpp ba buntu ka seedu wilaas te ñu ngi bàyyi seen këye ba fële waaye bi ñëwee ci jàkk ji lañ ko départ ba buntu kër chef du village dem ba ca buntu kër borom dëkk ñëw ba ko defal ko ba mu njëkk ñu ñëw teeru seen morom yi ñu ngi nii tey waaye kon jaageen jëf yal neen yàlla fay ak bokk fay leen lii lay laa noon ma dikkee ma présenté ko waa kër Serigne Bamba ngeen xam ne wax dëgg yàlla xale yi depuis ñetti nit ñeent ñoo ko fi départoon gannaaw gi mag ñi dugg ci ba am biñ toll ci ku ci nekk jàppale sa loxo te nag gëlëm gëlëm la ñuy rey incha allah ñaan leen yàlla gëlëm gëlëm gëlëm la ñuy rey te kat góor gi taxaw na te bu ñu ko ñaanal dañ ko am. incha allah. yal na ko yàlla def. amiin barke rasulillah. macha allah sukran na Papa Ibrahim Dramé. nu ko waxee noonu dañu continuer programme bi rek. di santaat soxna yi nga xam ne ñoo fa teew ak délégation yëpp. doon wax ne lislaam noonu la daan demee. ndax sallallahu alayhi wa sallama bu mu bàyyi ko sa xuntuma ak tiitaange jigéen moo ko doon defal ba nga xam ne wéykat ba nga naa wax naan qad yi jotu sakkanat bil qalbi qaailatan laa yuxsika llaahu fi daarayni laa takwi kon loolu jigéen la woon su ko defee dañuy continuer ak jotaay bi ak programme bi ak xat-xat bi di joxoo Cheikh Cissé ko defee nag Cheikh Cissé mu a dalal waxtaan ubbi présenté ñi nga xamante ne nii ñoo ci gannaawam su ko defee ana Cheikh Sarif bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim allahuma salli ala sayidina muhammadin faatihi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa nasira xaq bil xaq wal haadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaari aziim wajjalna si amda jaalibatan ila aliman wal islam wal ixsaan wa ila saadati daa'iman faraj yaa rasulullahi alayhi salaatu wa salaam asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu nuyu ku nekk turam ak santam nuyoo boobu nga xam ne mooy nuyoo lislaam di leen wax ne am nañu mbégte mu tedd mbégte moo xam ne ah, am na fu mu am na fu yem ñu koy seeral suñu boroom di ko seeral mbindeef suñu boroom yi di leen wax ne bis bi rëy na lool kawe na ci ñu yi teg ca ndax bis bi euh, li bis di am lépp am na ko ndax bis boo xamee ni sët bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa toog ci ron baas bi muy sama turandoor mu ngi nee dégg nga ko muy Serif Omar ñëpp xam ko ñu koy ñaanal suñu boroom guddal fanam wéral cëram ndax xam naa ni amul jot tey jii mu ngi am ay programme yu bari mu ñëw ci bis bii ngir sama jëm ak jëmu dëkk bi ak bëgg leen bëgg noo defal ay tawféex kon ah, turandoor suñu xol set na am nañ mbégte mu rëy bu loolu wéyee ron baas bi euh, mbàkke mbàkke bii nga xam ne mooy sëñ maam Balla Mbàkke nga xam ne mu ngi nii toog euh, nu amaat ci mbégte mu rëy muy liggéey liggéey bu rafet ñu koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm yeggali yéeneem mu ànd ak délégation bi bay Faali sëñ Abdoulaye Moroon jël kaar jël yeneen dëkk fayal leen indi leen ne ñoo sosoo café gi def café gi yëpp indi ko ngir jëmi sëñ Tuubaa xasaay ji kon sëñ Maam Balla ñu ngi lay ñaanal suñu borom guddal sa fan wéral te cër ndax amoo jot xam nañ ko bu baax bu loolu weesoo ñu am gan goo xamee ne moom it mu nga jógee ba Touba sëñ Moustapha dem taal otoom ñëw ngir jëmbi ngir jëmmi sunu borom ak bis bi nga xam ne sama waa jooju ma may roy muy sëriñ ak saa saa moom moo ko njëkk a jox teenee ca Touba. moom yi nekk ca boofeel màggal gi weesu ma dem foofa di jàng ki mbokkal foofu foofa yëkkatiyaa jox ma man mii kon ñoom ñi ñoo ni dox ñoo njëkk jox teenee ñoom ñoo ma njëkk a jox teenee ñoo ko jox a jox sëriñ ak saa sàmb mu taalaat otoom ñëw ba fii kon loolu naa ko seeral mbooloom mi lu dul nu amaan mbégte moo xamee ne mbégte mu kawee kawe la mbégte mu rëy ndax lu yem ni Cheikh Mahamad Sol du Mahamadou Mansour Ndiaye bëgg naa sax ñu def nii ñun ñëpp ñu màggal ko ndax Cheikh Mahamadou Mansour Ndiaye ñu am bisu diine bii tuddee ko ko mu nangul na ko ndax xam naa ni mënoon nañu wax waaw sax ñun ñu comprendre waaw gi daanaka ñu xam ne kii waaw ji moom lu mënta ñàkk la waaye mbégte mu ci àndal bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa tax biñ ko ko waxee mu àndu ceeg mbégte lool waaye bunt bii ñu fëgg jàll ci moom muy sëñ Babacar njaay buñ ko ko waxee keroog daa commencé rek bàyyi ko na nan dem ndax li ngeen ma wax dafa rëy lool loolu nu am ci mbégte mu rëy rëy ah, bu noppee ñu jaar sunu baay sunu mag alaaji seeni njaay nga xam ne tagg ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam la donc baax nu koy bàyyi xel bu baax a baax ah loolu nu am ci mbégte mu rëy di la ñaanal sunu borom defal leen jàmm defal leen saanux daa réy bëgg naa nag ñu yore micro bi ak ñu war a wax yépp kuy wax ba am ku la waxal dangaa war a bàyyi ñu waxal la bëgg naa daal ñu bàyyee micro bi ñu war a wax ñu wax ñun ñu toog déglu leen waaye kii nu jël kee jël kee jël kon bu yeboon ñu bàyyee ñu bu guddi gi ñu te dem nañ leen bàyyee micro bi comme dalal nañ gan leen bàyyee micro bi sëñ Ousmane Ndiaye sama xaritu bopp la sama sëriñ nga bu baax a baax man maa leen maa leen bëggal sama bopp lu sumay taxaw fenn wax ndax suñ ne ma ko bëgg ma wane ko ki muy indi sax dana leen bëgg barki sëñ Tuubaa kon nun nu ngi am mbégte mu rëy ci yenn te xam ne wéeru nañ ci yéen làqu nañ ci yéen te bu leen ñu fàtte ñu ngi koy sàkku bu baax a baax njaay ah di nuyu président bii nga xam ne mooy Cheikh Abdou Lahad Ka nga xam ne day jëmm joo xamee ne li ma dal ci moom mënumaa toog di ko wax kenn man damaa xam ne dama koo gis bëgg ko ngir jëmmi sëñ tubaa xasaayid yi rawatina mu xam ne kii ndaw la mu may dimbali ci lool lu man ci jàppale mu ma koy def loo xamee ne xam na ne man mii maa ngi xalaat lii sax waxuma ko moom moo ma koy junji àgg ceeg man ngir bëgg ma ko wan la xam naa li nga bëgg kon kooku ma koy ñaanal suñu boroom defal ko jàmm defal ko sant daa daaree ni may nuyu waa Croix-Rouge nga xam ne sëñ Ousmane Ndiaye moo booleeg ñoom ñu nga ne la toog bayoo ko Samba Gueye ñëw ci bis bi ngir taaral ko ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ak Samba mii nga xam ne ñoom lañ dalal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di siyaare mbooleem ku fi teew borom dëkk yëpp ak imaam yi di nuyu sëriñ Ampati Cissé nga xam ne mooy suñu kilifa bu baax a baax wax ji daa mënta ñàkk waaye konoon nun duñu wax waaye euh, il faut que nu wax waaye nun koy sant moom sëriñ Ampati Cissé bu baax a baax ak mbooleem ay rakkam ñu kenn ñu ngi leen di xamal daal mbégte mu tedd moom la ñu am mbooleem jàngkat yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw nag ñu ngi ci biir kër gi jàngkat yi mënuñ leen di lim. mooy Cheikh Abdoulaat kooku su ma ko fàttee kon. dara du baax sëñ Abdoulaye Seck moom laa doon wax léegi ne moom laa xam ne amuma lenn lu ma koy fayee ndax xam naa li mu yéene yéene ci réew mi yëpp ko ci dëkk bi teg ci dégg nga xam naa li mu yéene ci dëkk bi man nag duma ci wax dara dama koy bàyyi rek yéeneem xam naa ko yàlla na ko suñu borom mottali man loolu rek laay wax kon nag su su loolu weesoo jànkatu xasaay di bëgg naa nu bàyyi leen xel bu baax xam ne baas bi suñ ko baasee suñ ko allo sëñ Amar mu nii ci biir bu bu bu ñu noppee moom moo ñëw def waxtaan bi su noppee jàngkat yi commencé sëriñ Mourou Galas Mbaye siif na ba ne day ñëw daf na ma sa bis bi maag sëriñ ak Saar noo doon ànd di jàngi métier sëriñ ak Saar nag moo ma woo ne ma sëriñ jàngam yooyu dama caa bëgg dem mu aaye ma man nag maa ko aaye gaay yi nag boobu léegi ñu ngi may sànni xeer naan ma da nga ko war a bàyyi mu ñëw ma ne leen sëriñ ak Saar suñ ko bàyyee mu ñëw man. dootuma mën a dootuma mën a tee xam lu may def te ñu koy roy ñëpp ñëw nañ ci dëkk bi ma ne ko sàmb toogal mu woo Modou Galas Mbaye fekk moom la bëggoon ànd ak Modou Galas Mbaye ne ma soo ma wooyee boo ma woo damay ñëw nee na ma maa ngi nii maa ngi waaj a dugg Kaolack kon loolu mënuma ci dara kon nag ñu bàyyi xel ne jànkat yi ñu ngi ñëw ñëpp ñu teeru leen te génne lu am jox leen ko ngir jëmmi bis bi kenn bañ a denc dara kon nag maa ngi jégalu bu baax a baax lii yëpp daan doon loo xam ne lu ñu mënta ñàkk leeral la waaye barki sëñ Tuubaa bu ma sañoon du ma wax damay bàyyi kilifa yi rek ñu wax Ndiaye kontaan nañ ci délégation bi rafet na lool barki alxuraan bëgg nañ ci lool ñu ngi leen di siyaar bu baax te di leen jégalu waaw di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. Salif fa tabaarakallahu waxtaan bi rafet wante. dañuy wax ñu ànd ak groupe rek nga xamante su ko defee moom tamit mu jël ci euh, li nga xamante ne moo ci bés bi incha Allah njol makk yaa leen gën def leen nii ñu màggal yónnent bi ñëpp yaa leen gën sirif sa maam def leen ni ñu màggal yonent bi man woy naa la bàkk naa la jàmbat naa la tey fi ñuy jëlee te ku mel ni maam rasulullaay xalila yaa ujaabil muhasabi wa am sila wala tabqiya an xayrihi mutahawala fakrim bi man antaro munsila aqeba lilahi bilmajdi walhala nabiyulo ahlal jinaani mubawwa'o ne leen nii ñu màggal yonent bi sirifoo samaam moo jara way moo jara moo jara kañ ne leen nii ñu màggal yonent asimu qadril bil aqi mursalo oh, yonent bi muskaana tiflan wa yurhalu falillahi minu wa huwa ala wa akmalu iman lil insaani al ibaadi muhalu habibi bi asraaril xulubi munabba'u kookoy samaam nabiyul asimu qadirin bil aqi mursalo yonen bi yowla bi muskaana tiflan wa yunalu falilahi min wa huwa ala wa akmalu karim walu habibi bi asraril xulubi mun na ba oo kookoy samaam ñol makka yow doomi abdullahi adina anin leeral nga kawnu bi teddal kullu insaani mboolem tiraanga yi ak xiwal yi yaa ko waral yaay sunu wasilatul aqani inda rahmaani sa géeji xam-xam yi moo wal dem ci képp ku xam yaa siddu yaay siddu min helmi wa irfaani yaay sawatul xalqi yaay xayrul bariyati yaay sangub arab ak arub yaa njiiti sooraani yaa njiiti yónneen yaa leen séedu luñ ma yaay seen wasilatu yaay seen xudbu diwaani ibrahima kër bañ ca taal ca xew bañ wax na yaa naaru ko nii sama ma Ibrahima kar bañ ko sànnee cab taxal la ca yaa naaru kuuni yaa ko santaane gëñ naa ni Yunus biirub wa yaa ko fa yaa kaw saabal ba waxam fa yoo fa xam naa ne bi ci baat gi ci Daawuda nguurug Suleymaan yow mi yaa ko dénkaane moo tax yonent boom da balaay dem déclaré say mbir ndaanaani ndaanaani yaa leen jox loolu Xayri moom lañ tànn muy ki fi gën amul ku koy dabu min jinni wa insaani mooy rahmatullahi moo jox doomu aadama cër tegal arab def xoreysin xayru xurbaani moom lañ digal mu rañaane màkka dem ba salim siyaara jàkka ja dafay mbiru kiimaan jibrilu sant ko mikaa'ilu topp ca moom ànd ak malaaka ya tasiman bi lisaani koo koy samaam mooy taaru màkkata moo leeral madinatu moo barkel kaaba ga ak sam-sam ba ba ñuy naane yónnentu bum dobaraay dem déclaré say mbir ndaanaani ndaanaani yaa leen jox la ñuy daane kookoy samaam sallallahu alayhi wa kon alhamdulilahi rabil alamin Cheikh Babacar lañ doon naa dal siif ndaxte moo fi teebal maamam Muhammad sallallahu alayhi wa kon bu fekkee nekk nañ tàggkati yónnent bi eh, sëtam teew fi balaay jël kàddu rek war nañ koy e, e, e, fa tabarakallahu daal di ko yëngalal mbir mi ndax kat ñun loolu mooy suñu affaire Serigne Mansour moo ñu ñaanal loolu fa tabarakallahu yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam fa tabarakallahu jërëjëf ok macha allah ah <laughs> Sarr Sarr Sarr Sarr waaw kii de ku baax la de sama mbokkam jàng la ko génnee Moussa la ko musaloon ittinaaba wa kul kullul baraaya maa unilo unilo bi mu diini bàyyi xaabaabal bi ngay def ci tagg sallallahu alayhi mi ngeen ñëpp la am ñu ko am ci sallallahu alayhi wa sallam te sëti sallallahu alayhi wa sallam ngi taw tagg ko sallallahu alayhi wa sallam tagg su ko defee dañ koy jébbal ak microphone bi di wa asalaamaaleykum. ñoo ngi lay nuyu waa kër Serigne Bamba yëpp waa kër Serigne Bamba defe naa ne xam na nu kuy Chérif ca waa kër Serigne Bamba 1981 laa fi ñëw maak ñoom maak ñoom ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin lépp loo xam ne mos nañu ko ñaan fii yàlla nangul na ko ci kàttanam ak ci man-manam lépp li ma mos ñaan ci kër Sëriñ Bamba yàlla nangul na ma ko ñoom xam nañu ko ñoo ngi nii mbooloo baa ngi fii ki ci mujj mooy jumaa ji ba ma ñëwee fii kerew ñu ma jumaa la bëggu ñuy wax nangam ak nangam ma ni ki kay defal mu ngi ñëw ci kenn du ci ñàkk dërëm te yàlla indi na ko ba nu commencé jumaa ji sama toomaanax di Chérif Umar Haydara baayam sama wëllëre woon ma ñëw fii fekk mu juddu mu tuddee ma ma nekk ak moom nekk ak moom nekk ak moom ba léegi comme dëgg dëgg kontaan naa dëgg dëgg tey kontaan naa yeneen bi kontaan na yàlla kontaan wallaahi wa antallaahi tey man Chérif kontaan na Mouhamed kontaan na yàlla kontaan na di ñaan yàlla góorgóorlu avancer rek bu ragal maa ngi sa gannaaw bu ragal dara dara dara bu ko ragal continuer rek jàmm rek ñu am incha allahu taala di monsieur le maire de maire la waaye man def naa ko député encore yàlla dana ko def ndax yàlla dafa ne atiu llaha wa atiu rasula wa atiu lamri minkum da ngeen topp yàlla topp yenente bi topp seen nguur bu fi nekk ci moom moo fi toomal président de la république kon war nañu ko gërëm war nañu ko sant ci teewaayam yàlla yàlla defal ko jàmm di sant nag sama kër man di kër Mansour Mansour njaay bu Misra 90 le 4 janvier 90 la sanc sanc Taba Mansour moo jóg ak saretam yi ak taalibum yi defal ma ñaari néegu ñax xaw ma ñett boobu jamono ñu def néeg yooyu defar ko yépp ci ay bés yu néew ba ma paratu xamu jox ma saaku dugub jox ma saako ceeb jox ma bëy yal na ko yàlla fay ndax ba man lam yashkurillah ba lam seen portable bi arrêté leen xawaay wala ma lakk leen ñoom ñaar sefa lam yashkurillah maa soow ko fi xam maax moom la te yàgg na lool lool lool xale yi kenn juddagul Babacar def naa wala naka seede ci loolu loolu yàgg na waaw ma ngoog kon fàttewuma loolu ne la jot ba doosuloo sax doosuloo tal li nga war a tal waaye mosuma ko fàtte waaw mosuma ko fàtte benn jamono ba léegi mosuma ko fàtte ca jàmm rek lay am yàlla guddal fanam may ko jàmm barkeel njabootam su ngeen demee ngeen eggali xam nga ni nga xaritam soppeem maa koy nuyu maa koy sant maa ngi koy gërëm maa ngi koy ñaanal yàlla loolu moo fi nekk euh, defe naa ni waa kër Sëñ Bamba quatre-vingt-un laa fi ñëw am naa fi trente-cinq trente-cinq ans léegi ah ana Omar Cissé xam na ko ana Birane xam na ko ak keneen ak keneen ak keneen xam nanu ko kon ñoo ngi nuyu sëñ Mor Mbacke moom itam di ko tëragal di ko ñaanal léegi di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ma bugg ndax ngeen jéggil ma dama yeeweeku dafa guddi te soxla ma sax addiya ci yéen te tey ma kontaan soxla ma dara soxla ma dara dara dara ci yow lu mu ñaanal leen yàlla. yàlla def ci yéen barke yàlla na ko fekkee déwén te géwén mu gën a neex ren yàlla dana ko def incha allahu taala yàlla defal nu jàmm allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad والاستقامة والصبر والهبة لبان كون مصطفى مصطفى مصطفى لبان كون المصدر إيزا لكل من قد بنور أوزا فقد ما فغل كل رخبة من سار كل من خبة محمد مزاد نبياتي كسف سيدنا محمد رسول الله محمد مزاد نبياتي فيما مدى وأبدا لياتي شبت أن ربنا لم يريد مثل له فمثله لم يريد لا زيادة له بل يوما ألست ولدا سباعا نجرمك هو نبي نجرمك هو نبي نجرمك هو نبي نجرمك هو نبي أنا شفت واجد بيت الله نجرمك هو نبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل سمام بابا سمام نينا نجرمك هو نبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل الله بعد منكر الجمال وصف قدس حلق الكمال كون النبي منتخى منتخى كسب بسيو منتخى بسير مكة كون النبي منتخى كون النبي منتخى كون النبي منتخى كون النبي منتخى محمد خير ورا مختار بن سمد كون النبي منتخى محمد alhamdulilah may sant yàlla baax feeñal fa kéemaan naar yaa nga naan seex ñëw na ku mar na ñëw naan borom Tuuba daa gide suudaan ya daa ngelaw wa maxribu wa ahlu bay daa na ku mel ni sëñ Bamba ñëwul fii samaani ba mu feeñee Touba Touba Touba Touba ay jënduñu woon mu feeñee Touba jëmar naan ngir Bamba bu ko neexoon mu feeñee ñun naan Sëriñ Bamba bu doon weer muy Ramadan mbaa sabar mbaa gàmmu mbaa weeru sultaan Sëriñ Bamba bu doon wurus Serigne Fallou Mbacké mooy dee tamit dana tulaay nga salli yow ala nabi wa sallim loxo bi bi aajatan dina musiba ndimbal ak yërmande tawfiq ak taysir yàlla yàlla defal na ko defal leen ci barke Borom Tuuba euh, ok amin ak seen sant amin amin yaa ak si euh, yonent bi sallallahu euh, sunu lépp Euh, jëmm jii di Serigne Serigne Cissé da danoo nekk ci fay euh, xëy na lii bi ñu ko defee daaw la waaw yàlla fekk loolu ko rek euh, damay ñaan ci barke borom Tuuba barab boo xam ne Serif dafay toog yaakaar naa ne warut fii toog ba jógee fi gën ñuy baax loolu gën ñuy tedd loolu doon deretu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw fi wax lu la jëriñ ñaanal ñi ci darajaay maamam waroon ñu bàyyi ko mu demee noonu te duñ ko teral man de ñemewu ko sëriñ sëriñ ñu ñi nga xam ne nañ ne ñooy taggkatu yonent bi nañ ci jiitu buñ bëggee suñuy làmp di tàkk ana sëriñ ñëw dem ñëw leen dama bëgg ñu teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba daraja Rasulullah ku si sa ñaq dem fa mu ko yàlla bu manqué te ordonnance buñ ci bokkati na ñëw ko mu fi toog surtout Serigne Touba ngi fi dañ leen war a teral waaw waaw ñu mu dem daa war de barke sëñ Bam waaw ak salaama sëñ Ahmad suñu bàggee ci kooku danañu jox ki nga xamante ne mooy sëriñ bi su defee mu tëj jotaay bi ñaanal ñu su defee ñu tëj concours yi nga xam ne mooy cérémonie officielle bi kii mooy suñu papa Gora Tall ñu xamee ko kon papa asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين alhamdulilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñoo ngi nuyu bokk ji nuyu fi yow góor jigéen mag ak ndalaw di leen sant di leen gërëm di leen tas ci yéen yaakaar te suñu yaakaar yàlla mu tas suñu yaakaar ci yéen yàlla bu mu tas sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen yéen ndaw yi nga xam ne yéen def lii xoolal bu leen neexoon ngeen invité ay ndënd ay musique ngeen di sàllal ci ko ba ba bët set bu yomal xayma sama borom duma leen waaye ndokk yàlla bi nga xam ne seen xel xalaatu dara loo may dajeeg bisab jullit bii du bisab kenn bisab rasulullaay la kenn moomu ko rasulullaay ko moom bisab yonent bi la dañoo am jawriñ ji woo xam ne dafa am ci rasulullaay loo xam ne kenn amu ko muy xaadimal mustafa am na ci rasulullaay loo xam ne kenn amu kon képp koo xam ne kii wax nga ne maa ngi liggéeyal Serigne Touba de bépp jullit boo gis jàpp ko comme yow bul xajale de ku xajale senn la ku xajale senn la sëriñ ma baawa njaay nga gaa ngi fi soriwuñ daa dégg Serigne Touba dem da ko seeti ba mu demee ne damay jébbal Serigne sëñ sëñ bu mag bi ne ko jóg taxu la loolu taxu la xoon a jóg demal ba ma taxu laa jóg. ñu wëlbatiku delluwaat ki si des ak ma ba xawa bi mu ñëwee waaj dellu del si xat ne ko damay jébbalu mu ne ko dégg naa ñeyu soo man a tàggoo ñoom bay leen ñu dem nga dikk soo ko nangu toogal nangu lu ma la sa njébal sëriñ ma ba xawa Njaay bayee ko fa ñëw képp kum ñëw neen ni su ma la fi ñëw ne demal maa yow xem taneetuma la demal ñibbi loolu leen suñu mbaaru njaay dem leen ñibbi taneetuma kenn wëlbatiku dikk ci sëriñ jox ko boppam Sëriñ Tuubaa nangul ko ak njëbbal ne ko réew moom ana ku fa ku da kilifa kum do réew moom ku fa am kilifa ku fa da kilifa mu ne ko sëñ Ablaay ku ñëw sëñ Ablaay Ñas de ma nga susee ma mu ne ko ko ne loolu la ko sëriñ boo demee def ko ne man kii jiitu jumaa yi ma ba léegi Alaaji Ibrahima Ñas Baay Ñas lañ ko tuddee de Ibrahima Ndiaye Baay ko tuddee de kon Sëriñ Tuubaa ku jàpp ci moom ngëbal koo gis ngëbal ana lu ko wax def ko ne man képp koo xam ne kii wëlbatiku ne ne su ma amoon sëriñ xaalis yëkkati ko gis ko sama sëriñ nga gis kii joxuloo ko ko da ngay nax sa bopp wala nga gis kii joxuloo ko da ngay nax sa bopp képp ku yëkkati àddee da ko jox sa sëriñ te gisuloo sa sëriñ jox ko ñii soo leen ko joxe egg na soo leen ko joxee yegg na soo leen ko joxe yegg na